dama ñëw tay ci journée bi ambaké samedi le premier bo nga xamanteni président Macky Sall mo def lancement bi mois bi passé pour ñu def set setal ci dëkk bi donc may membre de cabinet ci cabinet président. donc woné ni euh, tay Mbacké gën nañ en masse tey boo xoolee euh, euh, pousse sax ci avancer té santuma tam préfet parce que vraiment euh, duma ni préfet fi jaar mais bi fi jaar mom gis naa mu jël initiative bo xamanteni ni bu bu am solo la parce que euh, li ëpp solo mooy gis naa ni soxla na jege population bi gis naa ni soxla na pour mission bi ñu koy indi ci département Mbacké mu liggéey ko liggéey boo xamante ni population bi danañ ci kontaan en même temps président de la République tam danañ ci kontaan ñu ñëw tam ci sant tam rek ni may wax toujours que ni euh, li am solo mooy euh, euh, lancement bi am na tey mën naa ni Mbacké tey bu fekkoon yëf yi compétition la mën naa ni mën naa ni Mbacké équipe bi Liverpool parce que tey gis naa Croix-Rouge groupement des femmes nawetaankat yi tous les responsables ak ñi nga ni ay bonne volonté lañ ñu ñëw engagé wu pour jàpp ci le président bëgg pour dëkk bi set 9h la affaire bi commencé ñu démarré ndokook préfet ba yëf si jeex ñu pour leeral nag que ni lii dafa war a am continuité continuité bi mooy bale yomb na waaye tuur yi moo gën a ëpp parce que bo balé, ba paré mu nekkub sen sen mo gëna a nekk posan sax ci doomu adama bi ci mbali euh, ci ci tilim parce que fi dajelo ba nekk sen day am liñ nane produit chimique produit bobu bu fay dafay wat ci kër yi bu delloo ci kër yi mën na andi lorangé ci xalé yi mën na andi lorangé ci magni mën na andi lorangé ci ci ci donc motax nit ñi dañu wara balé ba paré diko tonni ba paré nak yalla dogal na président jël na équipement yi war jël ay camion jël ben société nga xam mbalit mi fuñ ko balé rek am na ñoom dañuy ñëw jël ko directement dem traité ko liggéey ci liggéey ci leneen beneen bi mooy moor nit ñi même les poupelles dañuy wax état mais kër moo war a wutal poupelle boppam man bu ma doon defar sama kër may wutal sama poupelle poubelle sama poupelle bopp ba pare xam sax ban slogan laa koy laa koy bindee peinture ko ba rafet ma wutal ko ay njàpp kat mbali bu ñëwee nga xam bu koy jàpp da koy fekk sax lix mu jàpp tour bu paree dem donc loolu mooy li nga xamante ni dafa am solo mais daal tey gis naa ni Euh, li ñu tonn ci mbalit tey ci Mbàkke tonni ko ko ko rouge ko di parce que dama gis tey ñu def action extraordinaire les jeunes rouge te itam ma ni xaar sénégalais yi moor mi dañu fal président Macky pour mu diriger ñu mais du lu sénégalais ñoom moom mi population bi moo président xamal ni pour yéen ñi moom seen réew woo naa pour ñu setal dëkk bi waxul waxul coalition Benno Bokk Yaakaar dañu sénégalais yi nga xam ñoo moom seen réew mi nañ génn ñu seetal ko population bi woo ci opposition bi donc voilà l'élection le temps que man de may génn di marche ci des terre à terre bu ma ko def ñëw ci lii euh, num euh, euh, ont déjà mouvement ñoo lànk ñoo leen di woo ci affaire bi mobilisation. pour génn wax benn kaa wax leen affaire nañ ko def ci ci ci ci li président bëgg nañ ñëw jàpp ñu ci ci ci ci ci seetal dëkk bi ak réew mi ba pare nag di wax donc mënuñoo bëgg a defar am réew te xol yi setul yeneen tiwuñ jàmm ki ñu ànd muy président Macky Sall c'est-à-dire ñëpp la yéen a jàmm lu baax la def mu ñu jox ko réew mi mu ñëwaat laajaat ñu delloo ko réew mi

ce jeune moy sa rew jeune bu branché wul ci li nga xamanteni ni moy mooy njëriñal euh, nu mu tëti mais euh, num tati rew ma du dem après Macky Sall dafa amul li fi nekkoon Senghor mo fi nekkoon après Senghor Abdou Diouf après euh, Abdou Diouf Abdoulaye Wade après Macky Sall ñëw Senghor ba muy ba muy yor rew mi Macky Sall ma nga ma nga Fatick di jang wala wala gënee gu aduna formation bu baax ak jël yor son yu baax motax tax ba suñu rew am ay produit bu melni président Macky Sall bo xolé président Macky Sall fan la génnee. Macky Sall ban école la génnee France ban école la génnee États-Unis fii la jàngee école primaire fii la jàngee euh, université Ndakaaru fii la doone li mu war a doon lépp kon nit ñi nañ gëm ni ñun Sénégal war nañoo mën a doon liñ doon te duñ ko jëggaani feneen am na ñoo xamante ni nii ñoo ngi laaj réew mi ñoo ngi yor ñaari nationalité am na ñoo xamante ni ñoo ngi laaj ñoo ngi ñoo ñoo ngi laaj réew mi ay ay Genève lañ jànge ji woon kii fi la jàngi lépp kon xam na lan mooy Sénégal beneen bi mooy xam na lan mooy souffrance su jigéen xam na lan mooy yor njaboot te amoo loo leen yore parce que ci lu dundu xam na xam na parcours yi ay waajuram xam nañu fi mu jaar ba ci fii kon Sénégal dañoo jël seen produit bi nga xam ne moo gën ci ñoom ulir ko parce que ki xam ñàkk xam lu neex xam lu naqari xam xam am xam ñàkk kooku déjà bu la diriger mooy li ma ko jox xam xam na ko